jërë ngeen jëf mbokk yi ñoo ngi leen nuyu di leen siyaar di leen bëgg bu baax a baax yéen a seen émission jàngat làmb ñu ñëw fii tey première partie bi ma ci waxtaanee ki nga xamante ni mooy Ama Baldé palmarès sam fi mu jot a jaar xama li jot a xew ci làmb lépp deuxième émission deuxième partie bi ma ci ànd ak ki nga xamante ni mooy Baye Djili ñu war a waxtaan ci équipe Bawol mbooloo seen palmarès saison bii ñu génn fi mu jot a jaar ak lépp première partie bi nag ñëw ci Ama Baldé Ama Baldé xale Pikine bi doomu Faalaay Baldé ki nga xamante ni nii moom la papaam papaam waxoon lépp li nga xamante ni perte naa ko ci làmb yaakaar naa ne moom dina ma ko andil te sama jooy dina jeex. moom deux défaites ak treize victoires loolu mooy quinze combats yi nga xamante ni moom la Ama Baldé def Ama Baldé nag bu ñu koy xool mbokk yi nekk na xale boo xamante ni am na jom am na fit mën na li muy def te aussi tamit bëgg na ko Ama Baldé bu dugg see stade kenn du laajte ana mbër mi Ama Baldé bu tuusee mu neex bu bàkkoo mu neex bu dongalee. jëm guus ah nga xam ne mbër maa ngi noonu a Baldé dafa nekk koo xamante ni waa Pikine dañ koo gëm bëgg ko ndax nee na li waa Pikine di bëgg man maa leen koy jox waa Pikine victoire rek lañ bëgg te man maa leen jox loolu nga xamante ni mooy victoire bi Ama Baldé am na lu bari loo xamante ni papaam ñàkkoon na ko ci làmb bi mu ñëwee lépp la jël tegaat ko ci norme yi ndax boo xoolee équipe boobu di équipe Falaye Baldé Ama Baldé am na lu bari lu ci def bokk na kook ay xale ki nga xamante ni mooy Jules Baldé junior yàlla na ko yàlla yërëm téexee ñu ki nga xamante ni mooy Faalaay 2 ak ñoom euh, mbër yu bari yoo xamante ni ñoo ngi woon foofu mais dafa ñëw marqué empreinte am Ama Baldé xale bu am jom bëgg li muy def ba tax na wi ñëwee ci làmb waa Pikine mujj ko tuddee sëll bu ndaw sëlu bu ndaw baa ngi noonu ñenn ñi sax dañ koy woowee Ama Baldé doo ragal doomu Pikine bi billaay wallaay doo ragal xale bi nga xamante ni dafa neex faral ndax moom Ama Baldé làmb dafa jox fulla fayda jom scientifique bu ñëwee da koy neexal ndax la ci wàllu bëre mu jëm combat boo xamante ne nag ah muy combat royal day jël si revanche moom Ama Baldé keroog bi Eumeu Sène di bëre ki nga xamante ni mooy Modou ci ñaande woon Eumeu Sène ci la bokk jàppale ko ci lépp mu ñëw yàlla dogal kii di Modou daan Eumeu Sène bañ na ko ba Balla Gaye tamit di bëre ak Modou moo andi woon Balla Gaye ba Balla Gaye daanee mu ne man maa xam man maa xam sa waxu Modou ba tax na nag damaa bëgg ñu jox ma ko yàlla dogal combat bi taxaw muy waaj combat bu neex combat bu metti waaye waa Pikine yëpp ñoo ngi ci ginnaaw ki nga xamante ni mooy Ama Balde Ama Balde sël bu ndaw bi doomu Faalaay Balde bi rakku Zil Balde bi ah champion bi. mbokk yi gis nga ñoo ngi doon waxtaan ci nga xamante ni mooy Ama Balde jot nañ cee jokkoo koo xamante ni bokk na ci làmb ñu koy wax Père Sala moom mi nga xamante ni nii lu ne def na ko ci làmb bés bu ne fekkee na ko dëkk fi nga xamante ni mooy pikin jom déglu ki nga xamante ni mooy Père Sala ato yi nga xamante ne jot na ko wax ci Ama Baldé chance bi mu am ci làmb ji ak li nga xamante ni moo ko dugal ci làmb ne boo boo boo ngeen dégloo mbokk yi di leen déglu Père Sall bi li xamante ne jot na ko wax ci Ama Baldé kaa ñu dem déglu ko te ñoom. jërëjëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ñu leen di seen site bi wasaare làmb ñu fas yéene waxtaanee ci jàngatu làmp ñu war waxtaanee ci koo xam ni eh, doom champion la di rakku champion muy kan Ama Balde Ama Balde doomu Pikine Ama Falaye Balde ku jur Ama Balde Falaye Balde mooy eh, Ama mooy caatu Falaye Falaye def daan wax naan li ma rëcc ci làmb sëll bu ndaw moo koy àggale mooy caatam mu amoon ci moom yaakaar trop yaakaar jooju yàlla soonu borom eh, def na ko Ama mooy mbër moo xam ne am na chance tamit laata papam di génn àdduna indi na ko ay yoonu yoon ci ay combat yàlla di ko may ndam yaakaar naa yéen a ngi fàttaliku diggante ak Baye Pël yéen a ngi fàttaliku digganteem ak champion yu bëri bu nu nalee lim palmarès bi dafay gudd waaye amaa doon na koo xam ni li ko dugal ci làmb mooy doomi mbër la ba pare seen kër eh, ay magam Jules Balde Paate Balde ñoom ñëpp ay mbër lañu. nga xam ni mu màggee ci loolu yaru ci ba pare doomu Pikine te Pikine ku ko tudd tudd làmb tey Pikine doo ko tudd di nga tudd Fallaye di nga tudd Dégol di nga tudd euh, champion yu mag xam ne ñoom ñoo fi nekkoon ku mel ni Papa Diop Boston ñoom Mansour Diop Mansour Diop Papa Diop mooy doom mooy bàyyi Ndiaga Diop. di nga di nga dégg champion yu bari yu bëree baree baree bëri Balla Beye numéro un Balla Beye numéro deux Mohamed Ndao Tyson ëmb ci ëmb seen mi xale yu baree baree baree baree baree kon pikin gox la boo xam ne goxu làmb la Ama ci digg-digal boobu la yaroo wane nag ay preuve am ci làmb mun naa nag Ama li ko gën a yóbbu euh, ci palmarès bu rafet bokk na ci TNT bi mu bëre woon digganteem moom Zos guy gi ak tafatin yàlla sunu borom def mu jël raw gàddu gi loolu bokk na ci li nga xamante ne moo ko indi fi mu toll parce que Ama daf doon raam di ñëw di raam di ñëw. mun nañ ñi làmb ji nga xam ne sax moo def Ama Baldé mbër mooy premier combat ak guy gi bi ko guy gi daanee ci la Ama nag xoolaat boppam ni man lan laa manqué damay dem wuti ko li mu manqué dem na wuti ko bi mu dellu gis ngeen li mu wone wane na ay preuve ci làmb amatul lenn loo xam ni war na ko mën a euh, ragal ci mbër parce que mbër moom bu dee am nga lay ragal sa tekk sa ngemb ndax mbër dafa am lu koy accompagner muy fit ak jom ak ngor waaye amaa loolu lépp mi ngi ci moom ndax da ko doon waaye bi ci gën a am solo ba am solo mooy fii mu toll nii ci làmb bokk na ci ñi nga xam ni tey bu ñu fi nekk génération bi fi nekk mu génération Modou Lo Balla Gaye numéro 2 Eumeu Sène ba ci tafaatin bi nga xam ne amaa da ko daan ak xale yi nga xam ni ñi ngi exercer di ñëw ku mel ni xaritam soppeem doomu ndeyam booy ñaa ñoom ñaar ñu bokk dëkk Pikine nga xam ne benn benn koñ moo dox seen diggante benn tali muy tali bees bi kon yaakaar naa ni kon ama war naa xool fu muy teg tànkam bu baax te mu ngi ci mu doon nag koo xam ni digganteem ak ay Modou Lo doon boo xam ni sénégalais yi ko bëgg ndax mbër mu ndaw moo gis nu mu daane mbër mu mag rek moo nekk ci xelam kon ama bokk na ci xale yi nga xam ni ah wax dëgg yàlla euh, mu ngi exercer di ñëw diggante ak Modou nag combat la boo xam ne combat amateur la te combat jànq la tamit comme niñ koy waxee kon daal amaa doon na champion boo xam diggante ak Modou Lo du ma wax nag kan mooy favori du ma wax du ma pronostiqué mën naa ne sax Modou mooy favori ndax Modou Lo c'est le roi des arènes actuellement te kan la daan nga xam ne mooy seen mag bokk ci mag ñi ñoom ñi nga xam ne mooy seen mag muy Eumeu Sène di doomu Pikine di seen mag di seen grand frère te mbër bu musaan dugg ci gox daan fa champion champion yu ndaw yi seen xol la cay nekk lépp mooy fexe ba jëlee seen mag jooju revanche kon amaa ak Modou Lo tey bu ñu dee daje tey jii mun naa ni combat jànq lay doon ci Ama waaye revanche lay doon ci Ama ndax dafa daan ki nga xam ne moom mooy seen mag muy Eumeu seen jël roi des arènes gi kon donc Pikine am na lu nu bëggaat li nu bëggaat nee nañu amaa moo leen ko mën a indil muy roi des arènes te Ama euh, làmbam dama koy xaw a yërëm léeg-léeg parce que Ama bariwul adversaire ah. parce que amaa du bëri ak Balla Gaye numéro 2 Ama du bëri ak Sa Thiès du bëri ak Lac de Guiers numéro 2 Ama du bëri ak Boy Niang Ama du bëri ak Eumeu Sène donc Ama dafa am benn catégorie bu mu war a bëri bëreel moo tax ay kombaam léeg-léeg di jafe moo tax léeg-léeg ma ni làmb ji camaraderie yi mu ngi yàq làmb mbokk nag mbokk la mbokk biiru mbokk làmb xaju fa parce que làmb dafa sensible mais doon na xale boo xam ne daal ku ko tëgg tëgg champion ku ko seetaan seetaan champion bu tuusee mu neex bu bëree mu neex bu feccee mu neex Ama daal mun nañ ni mbër la ndax doom yi mbër la te sibit gaa ngi ci moom kon daal man Alaaji Saali Jigéen jaay daal lii laa xam ni mën naa leen ko wax am ci lu mu ci jël rek ci Ama jox leen ko ndaxte daal Ama doon na koo xam ni wax dëgg yàlla buñ dee wax ci moom fi la nuy fanaan ndax ñun man Pikine laa dëkk Pikine laa dégg ngóor si ba dégg fi góor gi ñoom ñëpp maa leen yar ñuy samay doom samay jarbaat ma ne samay rakk ma xam leen baax a baax a baax di xale yu mën a bëre di ay jàmbaar di ay borom fit di ay boroom jom lii daal laa leen mën a jukkil ci lenn ci Ama Baldé jox leen ko pour ngeen mën koo mën a xam ci Ama Baldé le grand champion amaa Baldé ñu ngi koy ñaanal jàmm di ko ñaanal gudd fan di ko ñaanal wér jërëjëf seen site bi nga xam mooy Wassare Lamb jërëjëf Ousin. nee naa Ama Baldé chance bi mu am mooy chance bi nga xamante ni bàyyam fekkee na ko andi ko ci làmb mu bëree. nee na boo xoolee li nga xamante ni moo ko gën a def mbër mooy premier combat moo guy gi di ko guy gi daanee mbokk yi mu nekk defet boo xamante ni marqué na ko bokk na ci li nga xamante ni moo ko dellusiwaat ci làmb mu dem toog seetlu man laa manqué loolu moo tax ma ñàkk làmb ji tey loolu bokk na ci li ko gën a def mbër moom Ama Baldé nee na bu ngeen xoolee moom Père Sall Bigué nangu woon sax joxe ki nga xamante ni mooy favori ci combat bi waaye nee na boo xoolee bu xool Modou mooy favori ndax Modou Lo mooy roi des arènes te mut Lo moo daan ki nga xamante ni mooy Eumeu Sène Ama Baldé ñëwoo ko fournir dégg ngeen ko noonu la ko Père Sall bi nga waxee wax na ci wax yu am solo làmb nag nii la te dañuy dem xooli kii gannaaw suba ñu dem xooli kii bëgg lépp loo xamante ni da leen di bëggal ci làmb lépp loo xamante ni saa bu ñu gisee seen xol sedd Wassare làmb di ci jéem a dox. loolu leen andi loon ci première partie bi ci ki nga xamante ni mooy Ama Baldé palmarès am boobu na leen andi tous waaye temps bi daa xat. Ama Baldé daal tey lii la leen andiloon ci spécial Ama Baldé xam naa beneen yoon dinañ ko gën a yaatal maa ngi gërëm ñëpp di leen wax ne bu leen fàtte deuxième partie bi maa ngi ci ànd ki nga xamante ni mooy Baye Djili ñu waa waxtaan ci làmb waa waxtaan ci palmarèsu Bawol mbooloo saison bii ñu génn ku ne xam na ne palmarès bi xaw na gàllu goose waaye dinañ ci waxtaan waxtaan li nga xamante ni moo jot a xew ci làmb ak li nga xamante ni moom la écurie yi du dund maa ngi leen gërëm yéen ñëpp di leen jox and vous léegi léegi.